jërë ngeen jëf mbokku internetu Actubuzz eh, jërë ngeen jëf mbokki lamb mbokki amateur yi ñi nga xamante ni safoo di ma suivre fii ci Actubuzz tout le temps ma dina indil tout le temps ci li nga xamante mooy ah, suñu émission lambi tey ma génn des fois nag di indi ay ndaanaan toujours ci lamb saa bu toogee rek damay xalaat benn expert laa war a jër ci côté lamb ñu waxtaanee ko mais tey nag maa ngi jël koo xamante ne naa la surprise laa koy def ci yéen muy Père Modou Gueye Euh, ñu fas yéene waxtaan tey lu bari ci li nga xamante mooy ci côté làmb ku ko xam ci làmb xam ko ci amateur bu mag yàgg ci làmb dund ci làmb lu baree bare baree bare xam ci ñu bari parce que ñii ñoo seetaan ñoom Robert ñii seetaan nañ ah, ñoom Mbaye Guèye seetaan lu baree bari ci làmb mën nañu li wax ci yi nga xamante ne sax ci côté làmb bi démb ak làmb bi tey mais di nuy sama xarit ba Babacar ki nga xamante ne tey mooy Thierno sama xarit bi Thierno Couture ah sama téer bu mag bi di ko wax yàlla na jàmmam yàgg yàlla na ko defal tawféex bu baax a baax yàlla yokk mbir yi yàlla yokk avancement bu baax a baax noonu lay bàyyi ab père Modou Gueye ñu daal di nuyoo ñu continuer li nga xamante mooy waxtaan bi père ñu ngi lay nuyu di la siyaare ah, waaw auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim waaw ah, ginnaaw bi ñu sante yàlla julli seenante bi ñu ngi sant waajur yi di leen ñaanal suñu borom yërëm leen te jégal leen di ñaanal yaay bu baax di ñaanal suma yaay di ñaanal suma yaay di ñaanal suma baay yàlla yërëm leen te jégal leen ak bépp aji dawlu ak bépp woy dawlu ak bépp mbokk bu jiitu ci barke Seydina Mohamed euh, buuba actu actu buzz mm-hmm. actu euh, maa ngi lay nuyu di nuyu mbokk internet yëpp yi ñuy seetaan mm-hmm. di nuyu Babacar mm-hmm. suñu caméraman bi suñu doom ju baax ji euh, di nuyu balaa ñuy jàll nag ñuy jàllee si réew mi dafa am dëj surtout ndax dafa am tiis bu dal Sénégal laal ñëpp bàyyiwul kenn ndeysaan muy ndogalu suñu borom muy accident bi am Kaffrine nga xam ne daanaka ñeent fukki nit doomu adama ñàkk nañ seen bakkan ay téeméeri doomu aadama ñu si gaañu ba léegi xamuñu fu ñu nekk di ñaan yàlla ñi ñi ñi si loru yàlla leen yàlla yërëm te jéggal leen ñi si am gaañu gaañu yàlla leen yàlla delloo seen sago bañ dellu seen bokk kenn bëgg ko woon mais ndog yàlla ak dogalam jaam ak pexeem yàlla ak si rek ñu bàyyiwaat xel ci tali bi bu baax waaw di di ñaax euh, état bi mu xool tali yi ndax surtout tali tali yi baaxuñu am nañ ci part de responsabilité di ñaax suñu mbokk takk der yi tamit des fois bu ñu gisee oto boo xam ne baaxul bu ñu ko négocier nañ ko teg ci yoon yooyu dafa dafay am solo état bi mooy suñu suñu mbokk takk der yi benn bi mooy chauffeur si balaa ñuy demante ay long voyage nañu vérifier seen oto xool seen pono xool li ci manque ñu defar ko ndax ay doomu la ñuy yàpp te dañoo bëgg a yegg ci jàmm yooyu yëpp ay ay conseil la rek en tant doomu réew mi bokk ci réew mi yal na yàlla yërëm leen ñu aji ñoom ñëpp yàlla jéggal leen ñi ci ñi ci am ay blessé yàlla dellu leen seen sago di ñaan yàlla jàmm ci Sénégal yal na yàlla def ci am Sénégal Boubacar di kontaan ci yow rek amiin Père Modou kàddu yi am na solo lool ci ni noonu rek laay dugg ak yow ci li nga xamante ne mooy waxtaan wi nga xamante ne tey mooy ci côté làmb di wax ne làmb famille la que ñun ñëpp ñoo bokk li nga xamante ne mooy làmb ji mais ngeen doon ci suñuy kilifa mais tey euh, damay dugg ak yow ji noo gisee jamono ji làmb ni muy déroulé te ñuy bari dañ wax ne làmb fay na fay mais jamono ji gis nañ bés yi am solo yoo xamante am na ci làmb ak fi làmb nekkoon euh, jamono ji gis na làmb euh, parce que bi yi yi fi euh, jàll. waaw buuba ni nga ko waxee dëgg la abu abdu ni nga ko waxee dëgg la ki nga làmbi démb ak làmbi tey bokkul parce que génération yi bokkuñu contexte yi bokkuñu mentalité yi bokkuñu donte làmb mi ngi dox suñu cosaan la ñu ñoo ko moom du fi jógee man dinaa dem lu yàgg làmb des fii ndax mbéy dem na Boy Bambara dem na Moussa Diame dem na. Double Less dem na. Ibou Senghor dem na. Mayoro dem na. Euh, ñëpp ñi fi ne woon ancien yëpp de Ousmane Ngom noonu Ngom. noonu euh, ñooñu dem nañu. te làmb ngi dox. kon làmb suñu ñu ñoo ko moom kenn jegaandewu ko fenn suñu cosaan la. ñu war ko fonk muy suñu culture nag bu ñu nee culture c'est la sages c'est le savoir. culture c'est le savoir. bu ñu nee kii om de culture la rek dafa fekk mu yaru. am discipline am xel di xeltu di laaj loolu mooy savoir loolu mooy culture te làmb sagesse la culture la famille la euh, malheureusement ñu bari xamee wuñ ko noonu waa dañuy ñoo def ko comme gagne-pain rek ah. waaw suñ ci tibbee baax na buñ ci tibbul baax na bu ñu gisee leen arrangé ñu def ko bu ñu gisul leen arrangé duñ ko def loolu du làmb làmb famille boo xam ne ñoo fi bokk nekk muy journaliste di promoteur di ménager di mbër di fan club di amateur famille réew mi ñoo ko ci réew mi la bokk ñu bàyyi ci xel moo tax man la yi làmb ngi dox gaa yi ngi tëgg lamb yi lamb mi ngi dox carrément millions yaa ngi dem mbër yaa ngi bëri VIP yaa ngi bëri xale yaa ngi bëri mais jikko yi ñoo baaxul waaw jikko yi ndax dama lay gis abu nga ñëw si lamb pour avancer lamb ma lay siis di la waxal lu ñaaw di la xas di la dëkkaloo foo dëkkul te lamb rek la te bu làmb bu jeexee da ñibbi sa kër mu ñibbi sama kër kon mun naa war na mën a rafet mhm. yooyu mooy jikko yoo xam ne mu ngi si làmb ji ak lobby yi nek ci biir làmb ji lobby yu bari ñu ngi si biir ji voilà da ngay ñëw bokk da ngay ñëw ñu ànd ci lobby bi. soo bokkul soo waxee dëgg wala nga nitu dëgg rek. wala nga xam làmb di ko wax boobu ñu dañ lay écarté. waaw yooyu yëpp mën naa ñàkk. ndax dañ defar moo ñu tax a jóg rek ndax ñun boo ñu xoolee xam ay père de famille la ñu boo la boo ñu xoolee xam ne làmb dund dundaluñu. passion la boo xam ne 73 ba léegi ñu si làmb di ko seetaan rek di jàppale xale yi yoo xam nga amul xale bu ma jàppalewul amul xale bu ma xamul ci làmb ji muy jamono muy jamono du lees jamono Doudou Bakassar jamono Moussa jàmbi dépp Demba Diop ba jamonoy tey bébé bismi ak jeex jàmm kon diggante diggante 73 la ak 2023 lu ne xew na ci làmb kon ñun war nañu mën wax ci làmb diggante 74 la Adrien Senghor ba 2023 Adrien Senghor bi ma fay dugg maa ngi fa fekk euh, Souley Caajaay Ousmane Daba Benoît Wélingara Wali Bopp yaa ngi ma dégg bu baax maa nga dëgg bii ñooñu daal mën a limal rek si bi may ñëw si Adrien Senghor ndaanaan yooyu nga xam ni ak Joseph ñooñu ñooñu laa fekk Adrien Senghor en 78 77 ñu koy toj waxuma ne Assane Diouf waxuma Demba Diop bul fàtte ne tàkkusaan bu gën a rëy ci Iba Mar Diop diggante Mbaye Guèye loolu ak Mayoro Fall ci si stade bi te boobu te boobu te boobu te boobu Mayoro Fall mi ngi jógee si Père Birahim Ndiaye dóor ko 2-0 mbay mbay mbay mbay mbay nangul ko kon nga xam ni ñun yàgg nañ ci làmb ñun amuñu dara lu ñuy lu ñuy lu iñaane doomu aadama soxluñ ko ay Baye Fall lañu ñun Cheikh Ibra lañ gëm waaw gëm Cheikh Fall Baye Góor ibnu Cheikh Moustapha Fall kon Baye Fall du soxor mais ñun ay homme de culture lañu dañu bëgg lu baax yéene ñëpp jàmm yéene Sénégal jàmm yéene làmb ji avancé gisoo CNG bi Alioune Sarr Alioune Sarr Alioune moo fi nekkoon. dem na Bira Sène moo fi ñëw. bi ñu nekk làmb ñoom ñëpp xaw ñoom ñëpp duñu ñëw làmb ji. dëgg la parce que yar sulaay bi ñu nekk làmb ji. ñoom ñoo ñii nga gis si gaa yëpp newuñu fii. mais teewul ñu ngi fi ba léegi di dund làmb di ko di am passion bi. di yéene Sénégal jàmm di leen yéene yéen suñuy doom. en tant que les jeunes journalistes. bëgg avancer làmb ndax làmb bu avancé yéen ci ngeen bokk booy. Mm-hmm. yow Bouba mm-hmm. abu mm-hmm. làmb bu avancé yéen Babacar yéen ci ngeen bokk parce que lamb dafay dox ay tànk kanam la amul tànk ginnaaw kon dañu war a ñëw jàppale lamb ñu yéenante jàmm jàppalante waxante lu baax ku nekk sa cër bi nga am ci làmb ah. ñu jox la ko sa wërsëg nga jël ko dem ndax yàlla moo fi nekk waaw loolu mooy wax ji daal waaw loolu am na solo papa ci li nga xamante ne mooy ci waxtaan bi nga xamante waxtaan ko ci côté làmb maintenant la tout le li nga xamante ne mooy kàddu yi ñuy ak suñu papa mm. ah, nee lu am solo carrément ci li nga xamante mooy ci côté làmb ah, la lañuy la ñuy waxtaanee mais beneen bi ma lay wax ci làmb mooy parce que euh, jamono ji ñu ngi gis euh, li nga xamante ne mooy euh, depuis combat Boy Niang ak Balla Gaye jàll ba léegi mm. ah, ñu ngi jël di tuumaal ko ci mel ne Yékini ay moo daan Balla Gaye léegi mais est-ce que papa ba yooyu ba léegi am ci làmb non dañuy tooñ fi laa la koy waxee mm. gis nga Yékini dafa bëri woon Balla Gaye Balla Gaye daan ko dem na bàyyi na làmb Balla continuer carrière am Yékini moo ko mag Balla nekkoon xale bu war a soxla roi des arènes dem liggéeyi def ci fulaak fay ak jom ànd ak ay bokkam ñëw daan Yékini làmb dafa am ay wax làmb coow la mu jeex làmb làmb foog mu foog coow am ci mais Yékini amul amul jotu Balla Gaye Balla Gaye amul jotu ni ndax Balla mi ngi ci teraangaam Balla Balla Balla lañu war lañu war rendre hommage jox ko cëram nit ñi ñooy wax mais Balla Gaye du wax loolu moom. ndax Balla Gaye yëkkatiwul làmmiñ ma léegi na yëkkati moo ko moo ko liggéey. nit ñi kay entourage bi mooy wax nañu bàyyi yooyu. nañu bàyyi nañ Sénégal du Sénégal yoruñu jikko yooyu nañu bàyyi yooyu. Ah, lamb la woon sport la woon. 2012 la woon eh. 2012 la woon. 2012 la woon. mu jeex. Ah. defe naa defe naa defe naa defe naa 22 avril woon 2012 ah, loolu jeex na combat la woon bu amoon choc muy coow comme ni Papa Kat ak ak Double Less meloon fii hmm. comme ni Mbaye Gueye ak Double Less meloon fii coow la comme ni Doudou Bakassar meloon fii ak ak ak ak ak Double Less hmm. comme ni Moussa Diame hmm. meloon fii ak Double Less Moussa Diame ak Double Less lañ njëkk a tegal Demba Diop oto Brisa marque Brisa sama kanam oto bu rouge marque coréenne la <laughs> boobu foire baa ngi door ubbi 74 coréens yi ñëw fa indi fa marque benn marque bu ñuy wax Brisa parce que marque boobu moo fi jële R R R 12 R R 10. Ah. xam naa doo ko xam. <laughs> doo xam xamoo R waaw xam nga ay Renault la. Ah. Renault 10 Brisa marque Brisa moo ko fi jëlee marque boobu Double Less moo ko njëkk a jël Demba Diop papay papay papay papay Balla Gaye mii le des arènes coow lu bari an mu jeex na. kon Balla yëge dañoo bëri woon rek. Mm-hmm. sport la woon Balla daan na ko mm. diggante mag la woon ak rak. mag mu tolloon digg ndëndam ak rakk bu soxla comme booy ñaa Balla Gaye nu mel nii rek noonu la demee woon kon nag jarul ay Yékini moo liggéey Balla def nii nañ bàyyi wax yooyu nañ génne yooyu wax sport la woon rek waaw bu muy def ak ak rakam rakam daan na ko mmh. ñu ba ñu rafetal yëf yi te bàyyi xas xasante bi réew mi ay ñoo ko bokk ay bokk lañu ay bokk duñu xasante Balla Gaye deful da Yékini deful dara Balla Gaye dañoo bëri woon jeex na Yékini Yékini du yàlla bi Balla daane Yékini ñaar ñaar ñaar victoire la fi tegle lu mu fi def ci àdduna bala ndaanaan ñuy ñuy ñuy salteel di yàq deru nit buñ buñ nañ dama bëgg axlu làmb ñu xam ni làmb famille la nañ bàyyi ñu def sport am na làmb coow rek la après dafay jeex yëg ni yëg ban ban idée am pour pour pour liggéey Balla Gaye amul wax ay wax la woon rek xool yëg ni ak Bécaye nuñ mujjee <laughs> xoolal Bécaye ak ak ak Gaston Mbengue nuñ mujjee Gaston Gaston dafa mu ñëw bekkaay magam gaañ mu ñëw jaale si ko maa ngi toog ànd ak Laxat Njaay ànd ak doom mu ñëw jaale si Bécaye ay ay mbokk lañu na nañu rafetal lamb ji nañu ñu bàyyi ñuy def bu ñu jaxasi nit ñi àdduna amul solo yëpp ay ay temps dafay dafay day day paase. waaw loolu daal laa amoon suñu wax ci kàddu nga baal ma sama doom euh, Abou Abou jërëjëf jërëjëf waaw dëgg solo ci li nga xamante ne mooy ci côté lamb mm. mais Père Modou Gueye combat Balla Gaye waaw mm, Balla Balla Balla moo jox chance booy Niang mm. nañ nangu Boy Niang moo ñëw daan saakees mm-hmm. ñëw talal loxo Balla Balla Boy Niang moo njëkk bëgg bëgg xam nga bëre Balla mm-hmm. gars wax nañ ko moo dàq bëri roi de arènes parce que Balla Gaye ñàkkul ki ñaan nit ku baax la champion la yaatu na taalibe Sëriñ Tuubaa la te soxorul te yàlla may na ko teraanga mhm. yàlla moo def loolu ci moom booy ñaa xam ne booy ñaa ndante la nekk xale bu am jom mhm. am ambition gëm boppam xam fan la jëm ci làmb ndax làmb yàggul muy liggéey liggéey ba ba ba yàlla boole ko Balla kon booy ñaa demiritu war na mën a jël Balla te war na ko mën a daan mais nag nan la koy daanee dafa dem liggéey dafa laaj baal ba pare dem liggéey nelawul ànd ak ay bokkam ndax ponkal mu toll ni Balla ndaanaan mu toll ni Balla champion bu mel ni Balla Gaye di gaynde nekk fi roi des arènes à l'âge de 25 ans xale bu ñëw xale bu ndaw bëgg a ñëw mel ni moom foog nga am noo mën a mel pour mun mën koo daan boo ñaar loolu la liggéey pour ba daan Balla Gaye boo ñaar dem na dem na jënd Balla jël avance am dem liggéey ak ay bokkam làqatu coow li bari mu tëm tëju bi mu ñëwee stade gi yow yaa ngi toog. gis nga li mu indi. indi na mhm. indi gàllaaj ànd ak ay bokkam. Balla ñëw xam ne mi ngi day xale boo xam ni tey mhm. foog mu taxaw carrément pour mun koo daan. Balla taxaw na ci loolu def li ko war mhm. ànd ak ay bokkam ba arbitre bi génne loxoom sifflé. Boy Niang gis nga ni mu demee am ci kawam ndam. ndam lu sedd nag ba pare delloo ko cër bi. te Boy Niang daan na daanan. moo tax bi ko Boy Niang daanee mi ngi mel ni Boy Niang mi ngi ndax dañoo Pikine yëpp a ay mbokkam yëpp a firéeku fi nii ñu ngi jubilé ndax ki ñu daan moo mel noonu moom mooy ndaanaan dégol dégol mer bu meroon bàyyi na ko giif na léegi lu baax la lay wax booy ñaar gis nga ko fu mu dem dañ koy teral ki mu daan ki mu ki ñu daan moo mel noonu du ndaw ci làmb ñu bàyyante xel ndax làmb loolu rek la xale bu soxla woon la di ñëw bëgg a jàll ak mag moo xam ne mi ngi ci presque booy sax mi ngi ci mi mu ngi ci fan fin de carrière booy ñaar soxla xam ne am xam ne fu mu jëm gëm na boppam mu ñëw wuti li mu ñëw wuti doole wuti gàllaaj wuti lépp ñëw daan ko si jàmm Sénégal jëm kanam mu noonu la lamb ji demee voilà ci Arafa Zarko lamb ji bëri na coow la 15 la journée Pape Abdou Fall ah, bu am la solo ay ñoom Fallou Ndiaye nekk ci ginnaaw jàpp ci li nga xam ne mooy ci bis boobu noonu mooy Ada Fass Zarko mais jamono ji Ada Fass ànd na coow xabtal gu bëree bëri ci combat bi dama xamul dafa fa bu jàppee Zarko da koy def fuuf benn mu jeex wala lan la. xam naa gisoo gisoo Babacar mi ngi mel luy bëgg a bëri sax dool nii la moom waaw xam nga Ada Fass ak Zarko dañuy mm-hmm. pare nit ku baax la waaw waaw ñëw si Laxat Ndiaye ñëw si Fallou Ndiaye ñoom ñëpp ay nit ñu baax la ñu parce que dañu fi nekkal jeunesse bi surtout Pape Abdou Fall kon bu ñu fekkee dañuy ñëw pour jàppale seen réew nit bu ñu ñëw pour jàppale réew réewam jàppale ay doomam jàppale jeunesse bi bu ñu ko fakkasal bu ñu waxante yu ñaaw Pape Abdou Fall jàmbaar la nit ku baax la dama koy envoyé boobu message mu gën a góorgóorlu mu gën a jàppale réew mi jàppale ndaw ñi parce que lamb la am te xale yi dañoo yaakaar ci ñoom bu ñu déglu dara waaw ku nekk daal da ngay bay sa rek dem lamb loolu la ada phase Zarko paf moo ko paf production moo moo ko moo ko organisé Pape Abdou Fall muy lamb ju muy lamb ju neex muy lamb muy muy lamb joo xam ni c'est ni ma ko tuddee moom mooy lamb kii la c'est le combat des xam nga loup am na genre xaj yi nekk ci àll bi noonu. nga xam du ñu may dara. ñoo bokk ci ko ñoom ñaar. kii ndaw la ndaw la ndaw la xam dafa am doole ba pare ba pare ba pare tëx. dégul jat mu dé mu day mag moo xam ni. dafa dafa blende moom ba dafa katakeñe te te néewul kattan. néewul kattan de. waaw Zarko néewul kattan te dof la boo xam ni. bu duggee ci géew nga xam ni kii dof la mi ngi booy boo xam ne dafa tëx. ba pare soxla toll ci buntu buntu làmb war a jéggi ndax ndax ndax Zarko daan na du événement mais Zarko Ada Fass daan na Zarko mooy événement. foofu la làmb ji nekk. <laughs> kon nag Ada Fass na jox si na bu bëggee daan Zarko da koy jox cër. da koy respecté waaw. waaw bu fekkee dafay ñëw ak fugg fugg fugg jeunesse boobu mu yor rek bëgg dal si kaw Zarko ah. ah du ma wax kan mooy daan de mais erreur la Zarko bu fekkee dafa bëgg ñëw taxañ booy bi ci benn minute <laughs> du yomb kon Ada Fass magam la mhm. Zarko Ada Fass rakkam la ñu joxante cër ñu bëri ko parce que làmb ji loo xam ne kenn mënu la wax ku nekk nan nga war a daanee sa morom mhm. parce que gis ma fi tactique gis ma fi technique lu ma fi gis moom mooy moom mooy fëggante ay ay arrêt ba mu saf sàpp da dox daje la da waaw da dal la dox daje la am fokk mënuñu mënoo mënoo indi technique gu Ada Fass mënoo indi mënoo indi technique gu Zarko dox daje la rek xeex la boo xam ni dafay dafay dafay metti ñu jàppante jàppante boobu nag fa la lamb ji nekk waaw am na avantage ñaari mbëri nag voilà nekk waaw xaw mu Ada Fass na bàyyi wet gi muy joxe ndax tam mën na koy joxe ngir lal mbot Zarko na wàcc bu mu siggi ndax bu siggee bu ko booy roofoo hmm. làmb ji jeex hmm. kon ku nekk am nga benn point faible boo xam ne mi si yow na nga ko téye Zarko nag mbër la moo xam ne neexul neexul manœuvrer neexul dërëj ndax esprit esprit bi mu yor la moo tax te Ada Fass dafa bëgg ñëw jaay ko doole ndax ni ma gisee Ada Fass mu ñëw nii doo dafa ko bëgg a <laughs> kon nag làmb ji loo xam daal dina neex abu lamb yi ñuy def ko ci fair play yàlla moo xam kii daan mais ndam li gënul Sénégal mhm. ñaari doomu ndey lañu diggante mag ak rakk la mhm. supporter laay waxal ak fan ci yi ñu dal waaw bëri na coow voilà bu ñu fàtte ne Ada Fass Cheikh Modou Kara la yaakaar Zarko Cheikh Modou Kara la yaakaar ñoom ñëpp Daaru Musi lañu yaakaar kon nañ bàyyi nañ bàyyi nañ nañ séddoo sa cër ci taalibe gi te xam ne sport rek la pour pour cinq minutes wala dix minutes mhm. mu jeex ndax ku ci am sa million yaa ko yóbbu yàgg say mbokk ngeen lekk ku ci loru nag yaay perte kon fan club yi supporters yi ndax amateur du yàq làmb amateur du yàq làmb ñu ngi nuyu ñu ngi nuyu amateurs yi ak le président Gora Ndoye waaw ñu gën a a taxaw ci combat boobu mu gën cee wax ñu ngi nuyu ñu ngi nuyu amateurs les jeunes amateurs mm-hmm. ak les présidents des jeunes amateurs président Gora Ndoye mm-hmm. nga xam ne mi ngi def mi mu def rôle ngi def liggéey bu rafet ci biir làmb ji mm-hmm. di ko remercier ci loolu a jàpp amateurs gën a ñëw mais fan club yi ak supporters yi nañu xam ne ñoo far ñaari sport la rek yàlla moo xam ki daan ki daan ñu xam ne daan na mu rek ki ñu daan mu muñ ëllëg ndax ay ndaw lañu rek. Ada Fass daanu Zarko du ko yàqal dara. Euh, euh, Ada Fass daan Zarko du ko yàqal dara Zarko daan Ada du ko yàqal dara ndax la vie continue te lamb la famille la ñu bàyyi si xel ñu ñu ñu xam ne ndam li gënul réew mi ñu bokk ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi fan ci club yi ñu dal bu ñëwee ci arène bi ñu bañ a def benn erreur ba lamb ji di yàqu ndax lamb ji neex lay nekk kontaan trop ci émission bi di bég ci yow waaw Soxu Mbar la maa ngi taxaw Euh, gis naa soq. seetaan naa sox topp naa ko Abba Az topp naa Marley. mais ñaari style bëre yi bokkuñu. waaw soq jël na poids par rapport ak ba muy daan digal. waaw jël na poids par rapport ak bi muy daan booy bi nekk golf. Euh, Marley. seetaan naa ko diggante moom papam papam pap Cambérène combat bu combat bu neex. waaw euh, Marley seetaan naa ko moom ak Laye Pythagore. waaw seetaan naa ko moom ak Xarim Diallo. seetaan naa ko moom ak euh, naaru sogaas ndar la ndaanaan la mhm. ndax njàngur la mbër la muy laxasu bu laxasoo du bàyyi voilà moom bu laxasoo du bàyyi benn euh, chute laa gis boo xam ne boo xam ne nelaw na si tuuti diggante moom ak jën kayre rek te boobu boobu xamuñu woon nu mu demee parce que làmb mu mel noonu des fois day wor voilà moo jën mhm. waaw mais à part bi mu ñëwaatee mhm. gis nga li mu tegaat benn la fi am benn erreur la fi am diggante moom ak euh, booy bawal voilà boobu xeexul gisuñu xamuñu ni mu demee ba léegi. yooyu dafa am dafa am ci làmb làmb day wor. waaw da ngay da ngay fii génn fële. mais Marley mbër la boo xam mën bërintaan la te mën na bëre te dafay laxasu te bu jàppee du bàyyi te ni mu gisee ni keroog maa ngi taxaw. Mhm. gis naa mu am benn vivacité boo xam ne moom la indi sox gis naa ku diis mbër la boo xam ne day def day ñëw day faqat. waaw day waaw day faqat kon combat boo xam ne. Euh, en tout cas daal légèrement lay jox. légèrement daal 60 daal 60 50 50 mais 50 cinq laay joxe. Mm. waaw 50 45. 50 45 joxe. waaw si diggante soq ak marle. waaw 50 45. 45 waaw ndax gis naa mbër moo xam ni day faqat day dóor day ñëw. Mm-hmm. day une dafay jàpp day bëgg yanu gis naa mbër moo gis naa marle boo xam ni. bu bu tafoo ci kaw bu tafoo ci kaw ci kaw soq. Mhm. dina ko indil bëre. te soq day may wet gi muy joxe. dafa dafa gaaw dafa garaaw. waaw ndax dafa mën a ko def boo xoolee diggante moom a nekk réel rek. ak la mu fa bëre yëpp ak ak nekk réel nga xam ne ndaanaan la kulli fàttarin. dëgg la mbëru tànk. Mhm. gis nga fi fi marle jaar ak moom te te nekk réel def na lépp. waaw mën a bëre. <laughs> xam nga kooku daanaka lam moo waxul dëgg rek. mais kenn du nekk nekk réel la su ko marle defee noonu. affronté ko tafu ci kawam taq ci kaw bañ a génn ak nu mu demee ak njool mi ak lépp bitir ñu ne ko lax man la ma tax la marle njàngoor la bu xasee ba takk rek dafay bëgg dafay bëgg eggale eggale waaw eggale action am voilà kon nag yàlla na yàlla def jàmm ci combat boobu euh, di ñaanal di ñaanal euh, doomu garçon bi makan tamit waaw mu ngi si yoonu làmb parce que makan comportement rafet na. dëgg la waaw voilà waaw kóol na. et du xëccoo. xale bu yarul la. waaw mu dal. dara eh, eh, dara dara effrayé nga dara dara kiiw ko daal. kon Makan ñu ngi koy ñaanal euh, journée yi mu monte diggante diggante diggante Franc ak. ak euh, yàlla defal ko si jàmm. sa kees euh, Reug Reug surtout. voilà en tout cas nañu nañu ñaanal Makan daal ak ak ak Gaston production. Mhm. yàlla defal ko jàmm Makan surtout Makan. Mhm. ak ñoom ñoom ay saf ñoom Laxat Njaay ak ñoom ñëpp. Mhm. yàlla defal ko jàmm ba muy eh, mottali yéeneem. di ñaanal bàyyam wér. surtout dañ ko ñaanal waa ndax tamit euh, def na ci réew mi ci làmb def na ci lu bari mm-hmm. voilà léegi nit ki mën na yor vie ci bu ko laal da xool lan la jëriñ réew mi rek nga wax ci jëriñ na Gaston jëriñ na làmb voilà yàlla na ko yàlla may jàmm may ko wér defal ko jàmm ba mu dellusiwaat ci sagoom ndax Gaston kenn la ci réew mi di leen di di kontaan rek ci yow mm-hmm. surtout xam nga da ma bett nii sax. ba mémoire bi taxawul nii sax. ndax naanaguma café xam nga Baye Fall bu naanagul café moom. <laughs> day jaxasoo waaw. mais ñu ngi kontaan. Mm. si ñëw bi nga ñëw si kër gi. di ñaan yàlla sit bii. Mm. yàlla Actubuzz mm-hmm. yàlla barkeel ko. ba li ngeen ci bëgg lépp. Mm-hmm. Babacar yàlla defal leen ko. ndax ay ndaw ngeen te yoonu ndaw du gaaw. mais maa ngi ñaan ci barke ci barke Serigne Bamba. Mm-hmm. maa ngi ñaan si barke maam Cheikh Rafal. maa ngi ñaan ci barke Cheikh Baye Góor. ibnu Cheikh Moustapha Fall yàlla suturaal la. defal la jàmm ndax booy bu baax ngay ndax ndax gis naa la sa yar sa yar sa teggin moo tax ma may la lii ndax yow ni mu lay xoolee moom lay xoolee ceerno maam ceerno maam ceerno yar boobu rek mu am solo parce que ndaw yar moo ko ndaw mm. bu bëggee réussir day bu bëggee dem dafay ànd ak yar ak teggin ku mu gis warmaal ko ndax xam-xam yaa ngi ci biir mag ñi te yar moo koy jël ndaw mi nag bu amee yar am teggin xam xam xam ràññee mm. dara du ko jomb kon si loolu Babacar si loolu abu maa ngi leen di ñaanal yàlla defal leen tawféex ah, site bi dem ci kaw di nuyu sama mbokk internet yëpp di nuyu samay mbokk yi nekk si àll bi nekk si nekk si diaspora bi Amérique France ñoom ñëpp artisanat bi surtout artisanat artisanat bi tam dañu leen ñaanal ñoo tamit ñu gën a ñu gën a ñu jàppale leen ndax soo demee soo demee artisanat bu Géejawaay ba dugg fa pàkk ba ay ñu am jom fa nekk lii dama bëgg nga jàllal ma ko nga xam ne dinaa ko jox waa artisanat bi ñu xool ko parce que boo duggee ci artisanat bi artisan yëpp yu fa nekk muy sculpteurs yi muy yattikat yi muy bijoutiers yi muy muy muy dessinateurs yi lépp képp ku fa nekk di yëngu si wàllu art dañu bëgg état ministre de l'artisanat mu dugg si biir euh, pàkk bi ci géejawaay mu defar mu defar artisanat bi ndax artisanat moo yor réew mooy avancé réew mais de mais malheureusement dañ ko fàtte ginnaaw te artisans yi ay jàmbaar lañu. demal su mbujum su mbujum dañ ko rey ba mu dee dañ ko dagg ko da ko dagg dagg ba mu su mbujum dootoo ko gis. su mbujum bu ndaw la te artisanat mooy dundal réew. mooy secteur privé boo xam ne bu ko réew amee mooy culture te nit ki bu pertee culture am jeex na. nit ki bu pertee culture am amatul amatul sens. culture mooy yor réew. mais nañ bàyyi xel baax ci artisanat bi ndax boo duggee boo demee géej waaye ba gis artisanat bi da ngay sa yaram day daw. Mm-hmm. amul hygiène dara baaxu fa. gars yi ci gars yi ni ñuy liggéey sax da lay won ni ñi ni ñuy liggéey baaxul te ay ndaanaan ay borom xam-xam ñoo fa nekk ay père de famille ñu ja ñu gestu artisanat bi ndax Sénégal jëm kanam ndax ñu ndax ñoom ci réew mi lañ bokk di wax maire bi nekk géejawaay waaw mu gestu artisanat Sénégal géejawaay boobu mu jàpp ci ndax moom la yàlla dogal mu nekk maire euh, moom moom moom di ñaan yàlla jàmm ci réew mi rek di ñaan artisan artisan yëpp yàlla defal leen jàmm sama mbokk artisan yëpp yàlla defal leen jàmm ndax ñun ci ci aar bi la dund yàlla def sutura ci Sénégal def jàmm ci réew mi ci barke Seexul Xadim waaw kontaan nañ trop jërëjëf jërëjëf jërëjëf Père Modou Gueye di ngeen di nga xamante ni laa la tey ci waxtaan ñu nag suñu papa nag di ngeen waxtaan waxtaan bu am solo